قيس مني الله عند جولي إبليس إذ ناديت بيا ولي نفى لغير الله قبل فندري بأهل بدن الأسود كدري نفى لغير الله فندكار السلام عليكم yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi yéen samay bokk mbokki dëkkaale yi mbokki dëkkandoo yi seen mbokk jullit seen mbokkum jaam seen mbokkum taalibe seen mbokk muy wujoo ci tur alxaaji Seex Sidil Muxtaar Mbakke moo dikk fii tey am lu mu leen bëgga leeral ci xéewal gi nu sunu boroom jox mu si bis bi nga xam ne mu dëgmal si te sëriñ bi amoon ci lim ci waxoon lim ci waxoon mooy lan bis bii nga xam ne ci waru safar fukk ak juróom-ñett ci la ma saa borom defalee xéewal gi nga xam ne bi ma demee ci ndigalam da ba wàññiku mu njukkale ma ko man nag lott naa ci sant ko kon ma bëgg ngeen santale ma ko mu jógee ndar lu wala jaar jaar kokki kër sëñ Matar Numbe jaar Makka Biragi jaar Sànna wala ko weeru koor wa teroo mu war ko fa ba war wa jeex mu jóge fa ca ñeenti fan ña dikk Mbàkke Kajoor jaar dëkk bu ñu wax Kër Matar jaar ñaxal am fa fukki fan su fa jógee ma këram gu tëdd nga xam ne moom la njëkk am ci kaw suuf muy Daru Salaam këram googu nga xam ne moom la ko sun borom digaloon ne ko na nga bàyyi ko fii ci mbusoo be Mbakke dox ci penku ba am lu mat nangami meetar nga dëkk fa foofe def nañu ndigal nga dëkk fa nga tudde ko daaru moo tax bi mu jógee bi bi mu ñëwee rek mu daal dëgmal foofa rek fekk fa Cheikh Anta mu nga xam ne moom moo njëkk moo ko njëkk ne aslamtu nafsi moo ko njëkk a dëkk loxo ci yoonu murit fekk farkam ci tedd joojee di sax anta ndax ba mu ko sance ba am fa ay ba am fa ab diir la ko jële càqami dikk ne ko dikkal toog ci san wet mu took wetam ba am ab diir mu daal ko ne seex may naa la kër gi ak li fi nekk lépp naa la ko daal di wolu sëñ Faati ne ko rakam ju tedd ja di jëwriinam mu ne ko Ibrahima dama bëgg li ma sa borom defal lott naa ci sant gi kon nag nga wax jullit yëpp rawatina taalibey murid yi nga wax leen ñu sant li ma sa borom cant gi nag mooy kenn ku nekk muy kilifa muy borom kër ngeen sant li ma sa borom li ko tàmbalee nag ci ganaar ba ci gëleem lépp lu ci waay na ma ko defee sama bis bi noonu ni la bis bi demee moo tax ma di ko sax waaye waaye lii ah, day day day wax yi ne rek moo tax ma di ko fàttali bis ngoogu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar mooy bis bi woo nañ ci ñëpp nag bàyyiwun kenn bi loolu amee ak bégal la ko tudde woon mag ñu dem ba yàgg ñoom ñu def ko ak tabaskiwaat mu ne leen tabaskiwaat googu dégg naa moom ngi kii defaat waaye neen ko bàyyi te def ko tudde ko ak màggal ndax tabaskiwaat googu yi ah dañuy di bëgg a fay bisu yontu yàlla Ibrahima bi kon loolu dañ ko tudde ko ak màggal mu tax bi sëriñ Fallu toogee ci baaxam ci bëgg ñëpp ñépp ñëpp am xéewal te muy taalib bu gëm sëriñ Tuuba bëgg ñëpp xéewlu ci moo tax mu ne bi mu toogee rek mu ne nañ ko indi fii ci dëkkam bu tedd bii nga xam ne mooy Tuuba bu ko defee ñëpp di fi daje jullit yéeg murit yéeg ñëpp di fi daje kenn ku nekk xam xam xam sa morom fa mu féete xam nga fa nga xam fa mu féete loolu moo tax sëñ bi andi ko Cheikh Cheikh Cheikh Fallou andi ko fii ci Touba loolu mooy sababu dikk Toubaam ji loolu rek gàttal loolu lañ leen bëggoon daaral liñ ci dolli nag rek mooy dëkkam bu sell bii nga xam ne mooy Touba lam ci ñaanal boroom lépp may na ko ko lim ci yéen woon lépp dañ ko fas yéene àggaleel jumaay njëriñ ji ak jumaay Tuubaa ji sunu boro a ko ko mayoon gannaaw bi ko mayee mu ne mu ñaan ko mu ne ko dama may jàkk fa Ndakaaru ak fa Mbàkke Kajoor ak fa Darul Muxti loolu moom la sëriñ bi waxoon kon nag jamono yi ñu toll nag jàkka jee mu ñaanoon boromam fa Ndakaaru daaw lañ ko tàmbali woon ba liggéey baa ngay dox nu mu war a doxe jumaay boppam jii nag lam ci yéene woon xëy na sax yéene dañuy daw daw ba suñ doole ba suñ ba suñ dañ ci daw ba suñ doole rek waaye na bëgg ko àggaleel na bëgg ko yeesalaat sololaat ko meneen bëbb ci biir ak ci bitti yokk ci ñaari sooroor muy juróom ñaari sooroor sëñ bi nag daw sas kenn daa digle rek nañ def nangam kon nag loolu rek ci lañ tënku ni itam sas ñu ci kenn lu ci waay jëf rek xam na yaa ko moom su jëf nga sa alal nga denc kon noonu ñu ngi ci woo jullit yëpp di ci woo murit yëpp di ci woo kilifa yëpp jàpp leen ñu ci ba liñ ci bëgg yàlla defal na ko jërë ngeen jëf نفعتني وقدت لي إحسانا ورثت في مدح النبي حسانا لحاس عبد الله خادم الرسول إلى أخرى عصمة وخير رسول